mais il apparaît aux yeux des Sénégalais que fu ñu toll nii moom ci ay choses inédites dañu nekk ci deux dernières ay exceptions yu yu mag a mag euh, di rappeler moo kan ne ko Sénégal y a un problème du du du du ñu bëgg a sous-entendre que les opposants bi xeex wala bi bi yelleefam wóoluwul justice wala dara signifié wul na en fait suñ ko joxee dëgg rek qu'il y a des problèmes que justice amul problème on parle de système judiciaire et mm. un système dañ koy organiser dañ koy tënk ci ay bases yi nga xam ne noonu lay fonctionner tout le monde est unanime que le système sénégalais si nuñ ko tëggee mënul permettre les acteurs de la justice de s'épanouir en termes de euh, nuñ ko en tout cas d'indépendance mm-hmm. te ñu bëri wax nañ ko même acteurs yi si bokk ñu ko mës a dund juge boobu ñu si bëri duñ ci dellusiwaat ñëpp xam nañ ne ce qu'on est en train de faire on ne lit plus le droit mais lu tax mu doon une chose très grave pour toute démocratie et pour tout pays toute nation mooy euh, euh, gannaaw ba ñu tëggee état ñun ay jàngalekat naan moo quand je suis moi aussi euh, de la maison je suis mhm. de philosophie de mon état donc même si actuellement mënatuma ko exercer un métier que j'aime profondément mhm. mais sooy jàngale droit xam nga ne droit sooy ab dëkk un état c'est euh, légitimité mu ngi koy tiire sur la législation yow lu tax nga nangu wala ma nangu diw ne diw mooy sama président diw mooy juge bi diw mooy ministre bi diw mooy diw donc c'est répartition yooyu yëpp dafa am ay textes yu ko tënk te euh, contrat social boobu joxe décision décision bi suspensif la article yow rappelé nga ko te ça c'est du français léegi yow l'État censé représenter l'État de comment dirais-je euh, euh, le garant des libertés ne duma def ça veut dire li ñu en wax ji nañ ko euh, résumer pour revenir euh, si ci li nga xam ne moo gën a simple sa veut dire l'état dafa mel ne dafa topp sax l'agent judiciaire de l'état li mu doon wax tout le monde était scandalisé li mu wax rek la def sa à dire li mu wax duñ ko def li di ne dafa ne juge bi sa décision de justice bi nga rendre nañu fàttale ko avant de se désister ce que l'agent judiciaire de l'état avait mais loolu état euh, bi di exécuter donc on peut dire que l'État su demee ba il n'est plus garant des décision de justice mais c'est le début de la tyrannie Ousmane Sonko mu ñuy wax dañ ko seppi fii dañ ko dugal fii dañ ko teg ki ma c'est pas des décisions de justice moom moom moo tax ñu ñu ñu sañ koo dindi bàyyi keneen ci biir su dee décision de justice ñu waat dindi ko l'État a l'obligation de respecter les décisions de justice parce que décision de justice suñu demee ba état bi entre guillemets di ko fule euh, au pied au pied mais on peut se dire que sur quoi on mais doit se baser dans ce pays. pour que dañoo jàpp ne dañoo jàpp ne affaire bi jeexagul. état bi dafa pourvoir en cassation bu ñu xamante une décision définitive pour mën ko jox li nga xamante mooy ces fichiers man li may bañ baabu j'ai très bien compris mais li may bañ mooy c'est d'être dans le juridisme xam nga lan ngay mën nga déglu ceux qui sont les spécialistes. je vais pas mener en tant que am benn profil de social yëpp unanime di wax yow xam nga ne tu vas ça va être difficile nga jël benn juriste. bi lay wax le contraire de ce qui à part peut-être ceux qui sont politiques nga xam ne ils sont plus dans dans les explications ne sont plus purement plus juridiques mais soo jëlee juridique qui se respecte il va te dire que ne moom yi suspensif c'est ça dañ ko lim si droit c'est ça c'est très clair en aucune façon décision bu ñu jël nii juriste yëpp spécialisé wax nañ ci cette décision n'est pas. après bu délibéré. su nekkee dafa délibéré casser. ce qui a été euh, ce que Sabassi le juge de euh, ñu mën a xam ne da ko kase ñu mën a maintenant mhm. il faut que c'est pas une mince affaire en fait il faut que le Sénégal que, que les gens sentent que nous sommes en danger comment ça ah nous sommes en danger parce que nag lu ñu mën a tënku parce que koo koo mën a koo mën a devant Sénégalais koo mën a teg ci tribune ne def na fii def na fii si droit nga ko teg. Mhm. parce que da nga naan il a fait distorsion à ceci il a fait distorsion moo tax teg nañ ko ci yoon du loolu la wax. Mhm. yoon googu noonu du mooy àtte. Mhm. yoon gi yoon ne ñoom ñoo ne newalu fi opposition newalu fi. pouvoir pouvoir. président lu mu si tegoon si dernier discours à la nation daanaka si tàggatoo bi je veillerai à ce que les décisions de justice nuñ koy def soient appliquées. bien sûr décision de justice. ñu joxe ko. dans les textes il est clair très Sénégalais yëpp xam nañ ko que c'est pas suspensif. Mhm. ñuy appliquer cette violence symbolique qui ne dit pas son nom. D'accord. après avoir reconduit deux fois mhm. Ayib Defé. Mhm. qui accompagné d'un huissier est allé récupérer ses fiches de parrainage. mais je ne peux pas comprendre dans un état de droit. on te donne même pas accès je te même pas de t'expliquer sax les raisons. parce que nag euh, le gentleman agreement voudrait que quand on est dans un état de droit. comment quelqu'un. Euh, ñu jox ko mandat. sur une chose muy te et puis dañoo xaar xam nga euh, ma rappelé lu ndaw bëgguma xaabaabal lu ndaw rek laa lay rappelé. Euh, ba ñu joxee décision bi xam nga ñu bëri nañu wax ne waaye mais lënd bi wala suba lañ war dem jëlee affaire yi bon c'est pas dit pourquoi on est resté tout ce temps là am na lu ñu doon xaar. Mm-hmm. lan doon xaar si juge bi bañ ko jotee. ce qui nous donne le droit de facto d'y Comment on peut nous interdire l'accès, je te dis même pas de nous expliquer, mais là, c'est euh, pas des hommes de loi qui vous empêchent d'entrer de voir même l'autorité administrative qui pourrait vous expliquer. C'est de la violence symbolique.